Touba HD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 sëriñ tuuba tuddee miftaaxu nasri fi duaai laylatil qadri ku nekk xam na ne fi mu toll nii ñu ngi ci weeru koor wi ñu ñaan suñ borom mottalil na sunu koor kon incha allah nu barkeeloo xasiida gi di ñaan suñ borom mu nangul nu ko waaye mu jëggal nu njuum cay njuumte yi nga xam ne xal xal set nañ ko cee juum xasiida gi mi ngi tàmbalee ci fii mu ne haasa miftaaxu nasri mu ne lii mooy caabi ndimbalul yàlla fii duaa i laylatul xadri ci ñaan ci guddig laylatul xadr ndimbalul suñu boroom loo xam ne képp ku ñaane xasiida gi ci guddig laylatul xadri suñ boroom dana la defal ak ubbiku dana la defal ndimbal mooy miftaaxu nasri caabi ndimbal ndimbal bu fekkoon ne ak kër la wala buntu la bu tëju caabi ji mooy xasida gi ci ñaan goo ciy ñaan ci laylatul xadri boo dugalee caabi ji mu ubbeeku mu ne alhamdulillahi cant ñeel na yàlla al mujibi kay aji nangu ñaan dil xadar kay borom dogal man yàlla mi nga xam ne xasanaa jagleel nanu faddalan ngir ak mbaaxam rek bi laylatul xadar ci guddi gi ñu tudde laylatul xadri mu ne cant yi ñeel na yàlla mi nga xam ne mooy aji nangu ñaan mooy borom dogal yi gis nga kooku dafa dellu ci inna anzalnaahu fii laylatil qadri ba dafa jël baatub qadri indi ko ci biir dafa jël baatub qadri dugal ko yàlla mi nga xam ne mooy dogal lu ko neex te nee ñu laylatul xadri guddi la goo xam ne suñ borom ci lay dogal mbir yi neena maa ngi sant yàlla moom nga xam ne ku ko ñaan mu nangul la ci guddig laylatul xadar waaye yàlla moom moonu jagle laylatul xadar muy guddi goo xam ne tuyaaba ji jégg na dayoo waaye nee na lu tax yàlla jox ñu ko ngir mbaax fadlan nekkul ne dañoo dàq jaamu yàlla xëy du njëkk ya nekkul dañ leen a gën ndey wala gën bàyyi déedéet yàlla daf ñu koo jox rek ngir ak mbaax mu lu ñu màggal la li sha'niha ñeel mbiram ma moom laylatul xadar fi dahri ci jamono xataa xadat ba mu mujj xayrun nekk loo xam ne moo gën min alfi shahri ci junni weer nee na lu yàlla jox daraja la jox gi mu ko jox daraja moo tax mu dem ba suñ borom ne moo gën junni weer muy juróom ñett fukki at ak ñeent ak lu teg loo xam ne nit ki da koy jaamu yàlla ci guddi yi di la di woor bëccëg yi boole ko xeec yoonu yàlla ndax loolu la mbokk moomu doon dund ci jamono yi ban Israël loolu la defoon suñ borom. bi ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nettalee saxaaba yi saxaaba yi ñee ko lool ah ñun de wax dëgg buñ doon gudd fan kon ñee nañ waa ji bëggoon nañoo am lu mel ne lim am yàlla jox nu loo xam ne génn guddi mën nañ cee amee lu ëpp loolu kilifa gu baax googee amoon moo tax sëñ Tuubaa ne muazzaman li sha'niha mbiram lu yàlla màggal la ndax dafa dem ba mujj génn guddi goo xam ne moo gën junni weer su ma salaatu topp xéewal wa salaam ak mucc abadan faawu alal la yàlla nekk ca nga ka nga xam ne badaa feeñ na xayral bari yëpp bi ngën gi mbindeef yi mu ne salaatu salaamu yàlla nekk ci yonant bi nga xam ne moo gën ci mbindeef yëpp muhammadin te moo di muhammad wala ali ak ñoñña wa bi ak sahabaam ya alkiram ña di way tedd yàlla na salaatu salaam nekk ci yonant bi ak ay waa këram ak ay sahabaam ma wafira li fekk na addaayi aji ñaan ja bi afdali maram ci ngën gi càkkutéef li ki nga xam ne dafa di saxoo bu amuy bu amee soxla dem du tàllal kenn loxoom loolu dem tàllal ko yàlla li fekk kooku ma ngay am la mu bëgg yàlla na salaatu salaam nekk ci bi ta kooku du dañ mukk di am ci la mu di di am di am la mu bëgg baatu bu zafira mooy tuufu mooy am lu bari képp koo xam ne da ngay def heure boo jaaxlee tàllal say loxo sa borom kooku incha allahu lépp loo tàllal loxo sa borom suñ borom dana ko nangu ndax moo ne yoront bi. ci alquran wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i isa da'ani bu la jaam laaje anama ne magini, maa ni nii jege leen lool nañ ma ñaan rek ma wuyu len haza yegal ne wa inni naka man señ tuba al yawma tay day zuftim tari boromuk sakola boromuk sakola min al karimi ci yalla mi aji tedja kullama awtari aajo juma mana don tay na ngeen xamne ne ñew ngir ñaan istimtar dafa mel ku naan damay sakku suñu borom mu wacce taw bi xam nga taw ndox mi nim mu bëree tay dama ñew di sakku ay ñaan yo xamne ne bu ko yalla nango moy ëpp doole ndoxum taw mi tay dama ma ngi ñew di sakku di tablu ci tabuk yalla gi soxla suma am rek ma ngi ñaan suñu borom waccel ma ci ak safara waccel ma ci ay xewal yo xamne ne raw taw bi mu tàmbali ñaan gi kon mune ya rabbana e yow sa borom bi fadli hada laylati maa ngi lay ñaan ci ngëneelul gii guddi fastur yàlla na nga suturaal maa ibi samay ayib wasma te yàlla na nga nangu yàlla na nga dégg te nangu xawlati sama ñaan gi mooy sama wax yi suñ borom ci guddig laylatul xadar maa ngi ñaan nga defal ma ci sutura sutura lu baax la léeg nga gis nit ku ñu fonk lool di ko tagg di wax daa baax di wax yow kenn gënu la ndekete yàllaa ko suturaal rek waaye bu yàlla feeñoo la muy def boo ko rombatoo sax mën naa am ko nuyu yàlla noonu yàlla defal sutura noyit yàlla na nga nangu xasiida gi te defal ma sutura muy benn yaa rabbana yow sama borom bi fadli haza al yawmi ci barkeb bii bis mooy bisu leel di xadar aslix yàlla na nga yéwénal umoor yi samay mbir wa umoora xawmi ak samay mbiri ñoñ yàlla na nga yéwénal samay mbir yéwénal mbiri mboolem ñoo xam ne samay nit lañu mooy ñaareel ik fi yàlla na nga fekk kullama lépp loo xam ne yaduru ne daf may lor wacc wacc xal te yàlla na nga def lii ñeel ma eh, alhuda njub sulaman muy sama escalier muy sama yéegukaay mu ne ci ngéneelul weer koor yàlla na nga ma musal ci lépp lu may lor te yàlla na jël ak njub def ko muy sama yoon sulam sulum mooy ab fooy jaar ay escalier yi def ci étage ak terrasse yi wala essanger yi loolu danga nga ciy jaar ngir mën a dem ci kaw mu ne nag man fi may jaar di teg sama tànk ngir mën a yëg yàlla ko def mu nek ak njub ya rabana yow sama borom wala yow sunu borom bi yumniha ci barke laylatul xadar habli yalla nang ma may da ngay wàcc ci xàpp wi ci suuf habli yalla nang ma may jinana ajjana nga demat ca kaw wata xiran ta yalla nga labal li ñeel ma al janana kholba jinan moy ajjana buñ commencé ci kaw moy janan moy fir ab xol ci barke laylatul yalla nang ma may wa yalla nga labal sama xol yaa rabbana yow sa yow sunu boroom bi jaahiha ci darajay laylatul xadar an nuurayni mi nga xam ne mooy leerug adduna ak àllaaxira habli yàlla nag ma may walil ummata ak yàlla na nga may xeet wi fi ci ñaari kër yi wala bokk nga ne yaa rabbana yow sunu boroom bi jaahiha ci darajay laylatul xadar habli yàlla nag ma may man sëñ walil ummati yàlla na nga may xeetu yonent bi fi daare ne ci ñaari kër yi loo ñuy may ak nóore ni ñaari leere muy leeruk adduna ak leeruk alaxira yàlla nag ñu may leeruk adduna ak leeru alaxira yàlla nag ma ko may man Sëriñ Tuubaa may ko xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bépp wasluk bi naa yàlla nag ñu sóob nahja najaahin ci yoonu mucc wa falaax ak yoonu mbégte waju sub te yàlla na nga ñoddi xuloo banaa sunuy xol li din jëme ko ci dëddu wasala akok mbaax yàlla nag ñu jaar ci yoon woo xam ne ku ci jaar mucc waaye jaar am ak texe waaye yàlla na nga xëcc suñuy xol bul ci def adduna adduna yi kese yàlla na xëcc mu jëm ci ak dëddu ak mbaax wa aw li naa yàlla nag ñu méngale yàlla nag ñu jox saadatan ak texe goo xam ne tëdduumu day sax ba faw wal ak ngëneel yaa man yow yàlla mi nga xam ne mulkuhu nguuram nga yedduumu day sax ba faw yow mi nga xam ne sa nguur day sax ba faw yàlla nag ñu jox ak texe goo xam ne day sax ba faw wasalliyan yàlla na nga doolee teral xayla saraatin ngën gi doolee teral wasalaam ak ngën gi doolee wóolu xalal la si ca ba nga xam ne daaru salaam ajjane daaru salaam min dóori mi ngi bokk ci këram ya nga ko jagleel kooku mooy muhammadin muhammad baabil xudaa mooy buntub njub naafirada mooy aji dàq alak alkande ak toroxte ki ko fi jële naa ilmada mooy aji sori lef ma mooy ka nga xam ne sori na ca yàlla ba kenn mënu koo jot jaali du jaa mooy aji wuññi lëndëm yi mus war a daa diirub yàlla yaa ngi ko sàkk diirub rot na yow maa ngi ñaan salaatu salaam nekk ci yonent bi nga xam ne keroog ba nga ko bindee ba léegi mus war a daa diirub rod na diirub bind ko ko mësta dañ di nekk koo xam ne mooy buntum jub moo fi jële ak alkane mooy kéefër mooy ki nga xam ne moo fi jële ak lëndëmu bokkaale ak wedd yàlla mooy ki nga xam ne yaa ko jiital ba dafa sori am lef maanaam dafa jiitu ba kenn mënu koo dab te mooy Muhammad sallallahu alayhi wa waaye wa wal aali ak ña ñoñ waa kër yonant bi wa bi ak saxaabaam ya wa man ak képp koo xam ne daxaa ñaan na làkk ñeel la yoo yàlla yàlla nga def salaatu salaam yonant bi ak ay waa këram ak bépp jullit buy tàllal loxo rek ñaan gi maa ngi koy ñaan maa aaba li feek dellu na man daxaa kay ñaan yàlla bil si ci ànd ak texe ga al asim ga gën a mag li képp koo xam ne heure bu amee soxla tàllal loxo yàlla yàlla defal ko defal ko fajug aajo mu am texe ga gën mak mag li fekk loola mi ngi am yàlla na salaatu ak salaamu nekk ci yonent bi te loolu du dañ mukk di am subhaana rabbika tudd naa selluk sa borom yow yonent bi rabbil izzati e, borom tedd nga la xamaa walif lépp loo xam ne yasifoona danañ ko ko melal ci ay melokaan yu wàññi ko wa salaamun ta mucc alal mursalina yàlla na nekk ci ñañu yónni walhamdu ta cant lillahi aji sax la ñeel yàlla rabbil alamin yàlla bi muy borom bindee fi loolu yéefar yi doon melal yalla nan yalla da am dom ak da mel nangam ak naya nay ak daa nangam suñ borom nako tudd yalla yalla sori na lolu sa borom de sori na lolu moy borom tedd nga ji nga xamne melokan yu ñaaw yoy ñukay melal sori nako waye yalla na jamm nek ci mbolam ñi mu rek moko ko yeyoo non noonu defal dégg top topp nako na Serigne Touba nangu defal nu ñu nek dëgg-dëgg talibé Serigne bi soñ Serigne bi nangu seenu talibé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa